Malick ñi ngi vingt cinq francs nga envoyé Malick waxoon nag mais góob ma ko woon vingt cinq francs waaw waaw buram ndambe buram ndambe de moo na ko gisee sax te xar waag no samrane mi de andim ale lu ko spot en ka man len samroki amateur ka ale amateur ki la ta ke lamta mbinde wegna copka te tama xata yen lema fan suma len bi de ne mbinde wegna copka tama xata lo len may wax o yo xa njaga ñaaw yaay ale sumbe yogo daan waat ale got piije mo saan deme ngañ seena genna xali fa dem di Allemagne maa ngi lay bëgge foofu suñu la waaw suñu kuul grand boo koy xalifa laa ilaaha illallah waa man kii woy làmb ji xanaa bodi la jël woo plaqué hey sini sa benn waaye Siny daan na monument Siny bu Bargny nee na a kat nee na ko kat ay doomu Bargny bi waa Bargny loo leen di jox xale bi